welcome to English Baby in Two salaamaaleykum chers internautes ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la ziar di la sargal di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay di la bëggee di la wax ne mbégte la ak contentement te ñoo jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne si yéen bëgg di support Pikini Production la chaîne qui vous assure vous rassure vous inspire et vous donne le plaisir et le désir bien sûr de parcourir l'internet donc euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne si mooy suñu deuxième numéro suñu deuxième leçon di wax ci li nga xamante ne si mooy les 7 jours de la semaine sept jours yi nga xamante ne si am nañ ko ci biir semaine bi pour commencer dañuy ñëw si bi nga xamantene ci moy euh, lundi donc lundi ñëpp xam nañ ni euh, olof bu mu ko naan altine donc altiné ci anglais mu ngi mu ngi nekk euh, Monday donc Monday moy altine ma joxe ci ben exemple she will travel next Monday. she will travel next Monday manam ku jigen ki mom dina voyager lundi bi di ñëw donc travel moy voyager. Nous sommes euh, mardi donc français mon mardi mais euh, olof moom mon le donc talata, anglais euh, ngi Tuesday Tuesday vais joxe donner un exemple the minister gave the information last Tuesday le ministre bi joxe na bataaxal bi talaata bii ñu bien sûr mercredi donc français mon mercredi mais olof àllarba donc alors, c'est anglais mi ngi Wednesday Wednesday on écrit Wednesday mais on ne lit pas le day du lire donc on dit Wednesday donc exemple we have meeting every Wednesday we have meeting every Wednesday Manam un bu nek am nañ ci li nga xamantene si euh, meeting euh, réunion wala ndaje donc euh, ndaje moy baatu wolof bi ñu jàll ci bi nga xamantene si jeudi donc jeudi moy France mom jeudi mais mi ngi donc alxames ci anglais mi ngi Thursday Thursday donc ma joxe exemple. I go to visit my grandparents every Thursday. I go to visit my grandparents every Thursday maanaam eh, jeudi bu nekk damay dem seeti samay maam ñu jàll si bi nga xamante ne si mooy àjjuma donc olof moom moo naan àjjuma mais France moom mu ngi ko naan vendredi ñu xuus dem ci anglais bi mu nekk Friday donc Friday moom mooy àjjuma exemple Friday is his birthday Friday is his birthday maanaam moom anniversaire am àjjuma la. anniversaire donc moy birthday bis bi nga juddou donc euh, aljuma moy anniversaire am ñu jall ci bi nga xamantene ci moy euh, samedi donc samedi France mom mona samedi euh, mais wolof mom mon ko nan gawo gawo donc gawo ci anglais ñu ngi ko am Saturday Saturday exemple they go at the beach this Saturday they go at the beach this Saturday Manam ñom dañuy dem plage euh, samedi bi ni ni manam euh, samedi bi ni. voilà ñu jéxalé bi nga xamante ne si mooy dimanche néna len dimanche euh, français mom moo koy wax mais olof moom mu ngi ko naan dibeer dibeer donc dibeer ci anglais ñu ko am Sunday Sunday donc exemple mon juste que Sunday is the last day of the week donc week semaine Sunday is the last day of the week donc euh, dimanche je bis bi nga xamante si semaine donc last dernier manam lu mujj da donc guys dans la lendemain, indiloon di leen jox également dig daje si sunu numéro de seen émission English by Bintou restez connectés sur Pikini Productions, guys à bientôt welcome to English by Bintu.